muy ñëw fële ca stade Diop Iba Mar Diop dafa ñàkk làmbam waaye tey gis nga magam a ngi noonu di ko soutenir moo lay wan ni làmb saa su ne dañuy wane seen bopp ñoom xale yi xoolal Pape Thiam le grand champion mu ngi noonu damay ñëw laaj Marle nuyu ko siyaar ko Marle nuyu naa. waaye fay naa la. waaye yam jàmm. maa ngi sant bu baax. rek di bëree tey lan nga yëg. waaw ndam rek laa yëg de ndam kase di ko ñaanal mu ndam waaw kase. lan nga ko yebee. waaw comme ni ko daan góorgóorlu def fulla def fayda li ko xamee mu ñëw def ko comme daa am si lu mu jógee tamit xam nga ñu lu ko ñu war a am ndam incha allahu rabbi yàlla ñu ko yàlla mooy rek hmm. déq jël bi muy bëree ñëpp nee dafa gaaw da woo ci xeex wuy si la ci bëre tey bu doon bëree déq jël pour génn ci làmb ji nan la ci mën a génn non loolu du am lu ma ko si wax parce que ay morom lan comprendre nga bu baax da yaakaar naa ne li mu liggéey bu ko bu ko ab liggéey rek mën waaw amoon leen lu ma naan ko ay defal nii wala ne moromam lay bëral bu doon koo ko jiitu si làmb sax boo ñëwee di nga mën a nga stratégie boo xamante ni a yoo xam ne jaru ko quoi ah, mu def li mën rek oui mën a ñàkk mbaar ndeysaan kaay réparé ngay sol yëre bu xonq waaye yëre bi fu mu jugee ndeysaan bi fu mu jugee <laughs> ndeysaan yëre bi fu mu jugee réparé nuyu naa fay naa la loo indi tay ndam ndam ndam lu mu lu mu ko yàlla may baax na ndam rek am ngay laale waaw gis man état la nekk waaw man daal man sama état boobu laa gis yàlla ma yàlla may ndam rek mystique bi bëri kaan xale baa ngi noonu yankaaw ngi noonu moom moo war a laalee caatu Daouda Fall mu nekk combat boo xamante ni combat bu nar neex lay doon ñaari xale bërki démb ba muy mujj fële te fi nga xamante ne mooy stade Diop Iba Mar Diop réparé la fa daanoon bërëg moom combat bu rëy moom xale bi ñëwaat na waaye gis nga li mu indi ci cimikaay moo lay wan ne fonk na bis bi moo lay wan am na fu mu teg bis bi waaye bisu xale du tuut gannaaw loolu dama koy nuyu mbër nuy naan ndam ndam rek am na ki ngay laale laa bëgg yàlla ma ko yàlla may doole si pouvoir ci xeex wala ci bëri lépp lu ma def rek yàlla ma yàlla may na la mu waroon def ci làmb yaa ngi koy gis li traditionnel bi mu ngi ñëw di def ay jéego yu bari moom xale bi nga xamante ni moo jugee Dalifort moom xale bi nga xamante ni waa croisement Cambérène dañ koy topp moom xale bi nga xamante ni bu jugee dund boobu yëpp dañuy jug ànd ak moom mu war a bëre ki nga xamante ni moo ay albarka kayre la war a laaleel moom Kaaw Gourdin xale la boo xamante ni bàyyi leen ko xel ci làmb mën naa bëre fonk na bis ay mbokkam yaakaar nañu ko gis ngeen li mu dee ci loxo bi li lépp ay décoru làmb la tey dinañ xam lan la indi kaaw nuy naan Dalifor laa amee. ah Dalifor képp dañoo jug ànd ak. Dalifor fooraay waaye wuñu fenn yaraax loolu la ñu andi tey. ah lan moo la ci mën may ndam tey. sunu borom rek moo ñu mën a may ndam moom la ñuy ñaan moom may ñu ndam. kese ñaar dafa mel ni da ngeen a xiifante woon tey bis bi ñëw nga ñëw toog jël sérieux ndokki say jubbeekaay nekk say wàccaay ay la loolu ah, parce que saa jëf a des wax tuxu jëf a des xeex wala ci bëre loo gën lu mu ca lu ci mënti am bàyyi jëli suñu borom lañu ñu may ndam rek Dalifort ndam rek lañ soxla pour que waaw parce bu la woowoon ci xeex di nga wuy li ci kanam rawali ba certificat yu bëri na waa Dalifort Dalifort forage ndeysaan jaajëf raq déwa ngi noonu moo war a laal ak bébé el doon léegi ci kanam ñaq noo de maa ngi sant yàlla rek maa ngi am jàmm bu baax loo indi non tey ndam rek at na ni dalay daan lool loo koy wax ci loolu kooku bee boobu dem tuubi te julli ñaari raka te xam ne dama koy daan tey incha allah bu neexee yàlla ci xeex wala ci bëri ci bëri la xeex yëpp kay tous les balaa pare naa lépp jàmm kay le moral est bon ah oui tu bien. maa bëgg a gaay albarka ngi noonu moom it compétition bi la bokk war a laale ki nga xamante ni mooy Kaaw Gourdin gis nga ko ma ngay yëngu moom albarka mu mel ni moom day xaar arbitre woote rek mu simmi la mu sol ndeysaan le moral est bon ma ngay yëngu. barka loo indi tey waaye moo la taw yàlla bi ginnaaw ba sant yàlla jul siyanti bi xoo ah, mooy loolu lu soxor la ma gars yi ku ci mel ni sama papa ku ci mel ni sama papa Ibrahima ku ci mel ni sama papa Cheikh kon amu lu may dellu ginnaaw reni jéggi man la taw yàlla bi ki ma ko jàppee xoolal dinaa ko ko dof ci xeex wala ci bëri. jaar yëpp amul lenn lu ma si bàyyi pare naa si lépp tey ci loo ko woo la ceew. je suis prêt pour battre sa waay gi je suis prêt pour battre euh, euh, Kagoura. je vais lui cropper je vais lui manger je vais lui faire comme le manioc. moi je suis fou. s'il ne me connaît pas. il n'a qu'à demander les hommes qui sont passés ici. oui moi c'est le fou de Dieu. je attaque je compte je gagne dama xaare dama baale. le fou. Rebeus. Kaw Gourdin ngi <laughs> ndeysaan lay laaleel moom albarka kay de ndeysaan moom ak kaaw gurdee ñoo war a laale waa lii lan la la gémboo lii kii de xanaa dem na mari fara kii de xanaa dem na mar faasu xam na dem na kii de xam na dem Fuuta kii xanaa dem na Foundiougne dem na Lac dem na Dakar Pikine Guédiawaye Grand Yoff kuy ñaan kat ñaanal na ko moom bébé Elton mais lii ëpp naa ah. mais xale bi li mu indi ci gàllaaj bari naa ay eh, bi bari naa déggoo ma pare bi bari pare naa pare naa loolu laa lay mujjee wax pare sëñ Fallou dama koy daan barki sëñ Fallou nee na boo jullee ci suñu borom ndax waat bi nga waat dafa rëy te dalay sëñ Fallou dama koy daan incha allah ci kàttan yàlla naa ko daan xanaa dañ ko bàyyi mën la ñëpp di xaar adduna man la ñëpp di xaar pare naa yëpp li de diis na gànn <laughs> ni làmb bàyyi nañu ko xel xale la boo xamante ne am na cër ci làmb xale la boo xamante ne bu dugg si da ngay gis tekkam gis teeyam gis ànd ak dal moom caatu daaw da faal waaye ma ngay bëre compétition boo xamante ne ñoom ñaar combat moog yankaaw junior bii combat la bu rëy combat boo xam ne ku ci nekk mën na ca wane boppam en tout cas ñi ma wan bi daal ñu ngi tëdd di seen tournoi ñoom ñëpp ñu war cee laale xale bu ci nekk mën naa téye làmb ku ci ne ci xale yi mën naa téye làmb caatu daaw dafaal nuyu naa la caat nuyu naa la dafa xaaral ba xool am na lu xool ci bët bi li war a entraîner muy lan mooy lu làmb ji laaj rek ñu def waaye waaj nañ ko ñu daan waajee au contraire lu mu wax tey naa wax ngeen lu mu indi mën nga ko mooy woore na bibé njëkk a dem lu mu ngi noonu déq mu ngi jël combat bi mujjee bëre stade Diop Iba Mar la bëree daan xale la boo xamante ne muy jug nii mu toll golf dañ koy topp Parcelles Assainies 1 ba 6 dañ koy topp moom teq jël ma ngay defaraat ngemb bi diggante mag réparé deux lay laaleel réparé na bu ñu mooy rek maar le moom réparé ak tekk jël ñoom ñaar combat bi du yomb ndax xam naa ñoom ñaari xale yi ku ci nekk daa xiif moroomam waaye en tout cas a xew mooy tekk jël ma ngay defal ngembam ma ngay waaj ma ngay dugg ci digg géew bi gaa yi muur gaa yi aadama ndeysaan mu ngi noonu ndeysaan ma ngay yëkkati mbooloo bi xale yi ñoo ko topp ñoo moom jugee ak moom ñoom ñoo ànd moom làmb ji muy bëre topp nañu ko ma nga noonu di njuug moom mi nga xamante ne mooy Mbaye Tine numéro 2 ndeysaan Mbaye Tine ñëwal waaw waaw laa ilaha illallah ndeysaan tey loo yëg ji li tey lu ma yëg ànd ak samay mbokk ñu yàpp ma man de confiance bu rëy nag parce que nay jàpp daal du ma ko daan combat bi nga mujjee ñëw stade Diop Iba Mar la ko doon yëg sa yaram tey yëg tey lu ko raw laa lu ko raw laa yëg tey ñaan yàlla may ma bi nga gisee bay bi nga gisee dab daan mu dugg si jàkkaarloo ngeen wax dab daan taxumaa jóg su daan naa la jiri naa la jiri wax ji am naa fu ma ko teg waaw kon ñu xaar waa ñu xaar ci dab daan tuus nga ba pare ñëw nga yëg sa yaram loo yëg sant yàlla bu baax li ma leen waxoon démb laa waxaat tey fu mu nekk ma fekk ko fa barke Seydina Amar incha allah xeex wala ci ci lépp loo gën a bëgg lépp lépp lépp nee na xeex bi moo la aar naa ci lépp su fekkee kan yi moom mën na bëre dëgg dëgg dëgg ma jommal gars yi ci bëri wala morale moom lépp fàcc xool ma xool ma xool ma ndam rek incha allah yàllaa ndam yàlla nañ ko jox la boo xamante ne leen ko xel ci làmb ndeysaan ni mu toll doole ji ëpp na noonu dañ <laughs> waaj a sifle ndeysaan combat bi mooy sama combat arbitre bi sifle na ñàkk jariñu bébé Elton bébé Elton moo féetee di joor ngemboo ngemb lu xonq lu am lu ñuul li am lu weex def sengoor yu bari takk gàllaaj yu bari ndeysaan moom bébé Elton ñàkk jariñu moo féetee càmmoñ moo ngemboo ngemb lu ñuul li am lu weex li ndeysaan diggante njool la ak ndaama bébé Elton wàcc na ba toll ak ñàkk jariñu ñoom ñaar dina yombam déet seen combat gu ne wax na ndeysaan ñàkk jariñu bébé Elton bébé Elton nee na ko dama lay daan ñàkk ne ko soo paree nga julli ñaari ràkk jéggalu suñu borom te xam ne maa lay daan <laughs> ndeysaan ñaari xale yi du yomb ñàkk dagg na léwtoo bi bébé Elton a ngi wàcc ba toll moom di dox ci koom Bébé Elton dafa bëgg a xeex ñoom ñaar ndeysaan boo xoolee taay bi nga xam ne Bébé Elton moo sut moo ëpp volume waaye sut ëpp volume est tax na yaay daan ñaq jëli na ko dóor na ñu ko xeex ñaq dugg na génnaat Bébé Elton ñaq ñaq daa bëgg a xeex ak moom bëgg xeex ak Bébé Elton <laughs> ndaysaan fausse garde la ak garde normale Bébé Elton fausse garde normale la ñàkk jariñu fausse garde combat bi ni ko seema papa Birahim Ndiaye di waxee day am ci ku mu jublu ndaysaan boo doon xool actuellement combat bi ñàkk la gën a jublu ko Bébé Elton ndax pied droit bi mu tegal Bébé Elton mun na koo déranger ci combat bi Bébé Elton ñu muy bëreel xaaj bi yëpp pied gauche lañ koy tegal dina yombam déet ñaq a ngi cokkaas ñaq bëgg naa xeex Bébé Elton sànni na ndeysaan ñu ngi noonu cokkaasaan na dóor na daw na jëli ko dóor na ko kuu kuu boobu bu dal ñàkk kaat avertissement kaat Bébé Elton ak ñàkk ku ne am na kaat avertissement ku ci jëlaat beneen avertissement làmb ji jeex lii lii lii waa waaye bëri yi ñëw bëri féem lii la mu doon ay ñàkk waay ndeysaan waaw waaw ay waay ñàkk waay doo dégg dara songoon nañ jàppante nañ rek ngay dégg lii man damaa reporté ba sonn kenn xamut lu mu doon cokkaas doo dégg song na doo dégg dóor na cokkaas na rek ngay dégg waaw magu làmb yépp a ngi wax ñii nee nañ kii moo war a dem ñii nee nañ kii lim dem doy na doy na arbitre tasal combat bi doy na bébé maa du ñu ñàkk deux victoire bi wala dañoo niil match nul match nul def comme daf rek lu mu lay rek combat bi lan moo la ci mën a may ndax bon lu mu lay mu indi bi di ko raw bilaay walaay mu rek jox ñu moom mu daanu kay mu jox ñu moom damaa dem jëlee marle léegi mu ne ma xale bi muy bëreel moroomam la du ma ko conseillé dama koy mu def yëpp lu leer lool dofu Diaz ak Hercule ndeysaan ñu ngi noonu ak Dofi Diaz ñoom ñaari ngi noonu arbitre bi sifflé na ndeysaan waalo ak grand bi ñu ngi noonu di laalewaat tey daanaka mun naa mbër yëpp ay mbëru géejawaay lañ Dofi Diaz ak Hercule ñu ngi lewaatoo ñoom ñaar ndeysaan Dofi Diaz ak Hercule ndeysaan Hercule moo leen wan ginnaaw moo ngemboo ngemb Lagos bi Dofu Jazz moo bëri takkaay yi moo nekk ikiri waalo cokkaas na Hercule cokkaas na Hercule Dofu Jazz mu dox ci koom Dofu Jazz ak Hercule Hercule Dofu Jazz na ngay xeex Hercule dóor Dofu Jazz fay na daw na jëli ko Doffou Diaz moo la woon ginnaaw actuellement Hercule moom nga jàkkaar lool ñoom ñaar laale nañu ñamante jàppante <laughs> ndeysaan nii mooy làmb Doffou Diaz Hercule ñaari xale yaa ngi noonu Doffou Diaz Hercule ndeysaan du yomb ñaar ku nekk jàppante na déglu ndeysaan ay réparé yaa ngi bëre xale bu laale dëkk <laughs> jël la jël ndeysaan dafa jaas équipe ñu ngi noonu dafa jaas dóoraat na ñoom ñaar téere yaa ngi dagg léegi sëriñ bi am lay ndeysaan ñoom ñaar a ngi noonu Hercule dafa jaas jàppante ne ñoom ñaar ndeysaan Hercule dafa jaas ñoom ñaar jàppante nañ ba tey dara xewagul xeex nañ xeex bu neex arbitre bi àtte na kaay leen ci digg géew bi na Hercule kaay nee na dafa jaas kaay lépp ci digg géew bi lay xewee ndeysaan arbitre atteel arbitre atel arbitre atteel arbitre atteel ndeysaan Doffou Diaz Hercule ndeysaan Doffou Diaz am na lu muy déclaré daw na jàpp ko ña xeex Doffou Diaz a ngay xeex ak Hercule Doffou Diaz dox na ci koom ndeysaan dox na ci kaw ma ngay seera làpp tànke bi moom dafa jaas Hercule dóor na dafa jaas dafa jaas Hercule ndeysaan dafa jaas dóor na Hercule ndeysaan dóor na dafa jaas Hercule Hercule moo la féete di jor dafa jaas moo la féete càmm ndeysaan ñoom ñaar a lu yomb Dof Diaz ak Hercule ndeysaan ñu ngi noonu ñoom ñaar Dof Diaz mu ngi signalé léegi arbitre bi naan ko Hercule dafa niin waaye loolu waxi mbër la avant ngeen bëgg sëgg yéen ñaar arbitre bi xool na ku ne arbitre ku mu ne niinul lañ niinul waaye ku ne da niin niin nga doon na uppercut dooraat na Hercule daan na ko Hercule daan na Dofu Jaas Hercule daan na daan na ko oh set fruits yu bokkul la xoolal tenue bi mu sol bergal <laughs> ba mu jiital ndeysaan lañ lañ lu lay def nata day dàq kaaw gurdee ngi noonu ndeysaan xale baa ngi noonu xoolal mbooloo mi dox ci diggante téq jël ak réparé deux réparé moo leen woon jël moom ngeen jàqaloo xeex nañ day gaaw ñoom ñaar ku ci nekk daa ñeme moroomam téq jël moo bari takkaay jokkaas na réparé fayu na réparé téq jël ña xeex dóor mu daanu mbaa am ñoom ñaar a xeex dañoo ñamante ñoom ñaar réparé moo la woon ginnaaw déq jël ngeen jàkkaar lool réparé moytuwul dalay woo ci xeex indi la ci bëre déq jël réparé ñu ngi lewaatoo réparé ngi ci kawam ndànk déq jël dóoraat na ma ngay dóor ña ngay xeex kaawa dina am déq jël dóor na mbaa dóor mu daanu du teq ja réparé réparé jëli na ko daan na ko réparé daan na ko réparé daan na teq jël nee oh, daan na teq jël réparé daan na ko ndaysaan teq daan na jël bu ko Adama kaay trois mois laa dem Gambie toog fa di liggéey ngir lamb ji lamb ji nii nekkoon lamb ji ma ñàkk ba Serigne Saliou dama la gis mu woo la ci xeex dafa mel ni dóor na la kuubu daal mais yaa ngi kuub dóor na ko lamb ji lamb ji ma nekkul lamb ma nekkul lamb ji ñuy xama parti parti quoi daal nga dëkk jël foo jëm sama morom rek dëgg ma kenn Moussa Deo nañoo ñu bëre on dirait fu nañoo ñu bëre waaw bi noonu commencé tournoi bi <laughs> bi mooy premier combat ci tournoi bi ey idaali jibril combat baa ngi noonu dox ci diggante albarka kayre ak kaawu gourdin bu dalifoor ndaysaan combat baa ngi noonu kaawu gourdin albarka dañ leen xool combat bi ñoom ñaari xale yi dañoo yàgg ñemente yàgg xiifante tey fu bi laaj na ay siisam laaj na Kaaw Gourdin laaj na Albarka arbitre bi sifflé na mbokk yi ko premier combat baa ngi noonu ci wàllum tournoi bi ba tey la ñu bokk Albarka Kaïré Kaaw Gourdin Kaaw Gourdin moo la woon ginnaaw ngem boo lu xonq li Albarka nga lool moo ngem boo lu weex li ñoom ñaar ñëpp ay garde normal lañ ku ci nekk sa tànk càmmoñ moom nga jiital dox ci diggante albarka ak kaaw gourdin ñu ngi lewaatoo ndànk albarka ngi dox kaaw siggi na dinañ xeex ñoom ñaar ñoom ñaar faw ñu xeex doo ko jàppante kaaw gourdin albarka ñu ngi lewaatoo ba tey léewtoo bu diib la def ñoom ñaari xale yi ku ci nekk mu ngi xool sa morom ci bët kan mooy njëkk dem albarka dóor na kaaw jëli na ko jàppante na ñoom ñaar ña xeex dóor mu daanu wala déet xeex nañ jëli na ko kaaw jël na ko daan na ko kaaw gurdee daan na albarka kaaw gurdee daan def na ko laay laay la xool xale Dalifort yi Kaw Gourdin daan na ndeysaan xale yaa ngi noonu champion bi daan na bëre na bëre bi daan na jël bu rëy moom Kaw Gourdin ndeysaan yaa ngi noonu oh! lamba gi trois points ñëwal ma tuuti ci combat bi ni ngeen bëree ñaar. Albarka la daanaan la. nan ngeen moo ma dimbali xaw ma sax ma ko daane. lépp sunu borom la waa Dalifor aw ma seen fay. daa mel ni daa ñëw pour nga daw xeex bi bëre. waa Dalifor lépp lamb la. lamb am nga trois points loo yëg. leen. jël drapeau jagleel ko sa jëkkër sa borom kër ban yëg-yëg nga ci am. am ci contentement rek ah, di remercier de macha allah rafet. bu gisee fii nga gis mbooloo bi ni ko teeroo supporters yeeg amateurs yi ñëpp jug tàllal ko loxo katagal ko ban yëg-yëg nga gën am ci sa borom gën a kontaan moom rek yal yàlla gën a dëgëral taxawaayam incha allah. soo ma doon wax tey Ablaye Djigo ban góor la ban façon góor la. macha allah góor bu le PCD Ablaye Djigo maa ngi lay nuyu di la siyaar. Ah, maa ngi leen di fay maa ngi leen di nuyu bu baax a baax. ñu daal di tuddee la nga ñëw ànd ak say mbok ànd ak say xarit ànd ak say njëkk ñaale ban yëg-yëg nga ci vraiment a jëf kontaan ba ma jógee ba Pikine Nord ñëpp a jóg ma kontaan ci muy li nga xam ne vraiment bett na ma parce dama ne ma bés kontaan ba ma duggee ci lamb si laa gën a kontaan tey kër ga lay ñëpp ñoo yendal ma nga xam nga temps dafa cher nit kenn ko jënd di daal di ñi ngi ñëw jël drapeau bu toll nii tudde ma ko vraiment dama ci kontaan vraiment nekk na lu amul ma ko fayee quoi yàlla ma koy bàyyi rek yàlla fay amateurs yi fans club yi ñëpp jug tàllal la loxo ban yëg-yëg nga am ci sa bopp. waaw vraiment loolu dama kontaan xam ne loolu yombul dama cee kontaan yëpp te bu mag laa ci am te vraiment ma xam ne ne Sénégal lépp lu fi xew la te li ma gis fi nii yëpp jeunesse bi la dañ leen encouragé jàppale leen pour ñëpp ñëpp di a rabbi jërëjëf waaw kay jërëjëf. drapeau tuddee ko doomu Pikine Ablaye Djigo ban yëg-yëg nga vraiment di félicité Idaly ci journée tayam bi di félicité aussi suñu frère muy Ablaye Diogo di vraiment koo xamante dafa nekk ci bi di jàppale jeunesse bi di jàppale aussi tamit nit ñi nga xamante ni ñu ngi fi am dëkku problème mu dëkkuwaay mu ñëw di indi contribution am ci làmb ñëw jàppale Idaly ci journée bi vraiment nekk nit ku baax di ko jàppale aussi tamit jeunesse bi. lay jaajëfal bu baax gis nañ sa teewaay ak yére bu rafet bi nga sañ. waaw mais sant rek kontaan yow tamit la jox benn yow ñoo far mais di bëggee amateurs yëpp aussi di félicité daal vraiment ci bi kontaan nañ trop parce que ñun lii rek lañ soxla ñuy tëgg lamb di boole ay naatangaaw te ko xool journée bi mu tëgg tey xool espoir yi boole nga xamante ni vraiment amateur la parce que lii mooy lamb dañu war lamb mercredi yee su lamb mercredi nga xool ni amateurs yi mooy wane ni fii ak journée bu mu mënti doon tëggal journée bu neex rek boo tëggee journée bu neex rek amateur la xool journée bi mu tëgg xam ni crème lamb la boole góor toog boo xoolee jigéen na nga ca ja xoolal soxna si jóg na bàkk nañ sa borom kër nga na lu mu dagg dagg na benn xànc ci tànk ba yanqaaw taatu daada faal yanqaaw jiital tànk càmmoñ taatu daada faal jiital tànk ndijoor mbokk yi seetaan yanqaaw moo leen woon ginnaaw moo ngem moo ngem lu xonq li bari seconde yi rek caatu daada faal moo ngem moo ngem lu ñuul li ku nekk ngay fëgg ñu ngay lawaatoo jokkaas na ndeysaan cokkaasaan na dinañ xeex dina yomb caatu Daouda Fall dóor na yanqaaw jëli na ko fàqat na ko caatu Daouda Fall yanqaaw caxabal bañ na jàppante nañ di ngeen bëre ko bañ na forcé na ko ndeysaan zongale bañ na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 jolla ak ndaama dab daan ma ngay dóor ci suuf pour mbaytin Tine siggi ndaanaan la moom dab daan ni mu toll doole ci ëpp na noonu ndaysaan ñoom ñaara ngi noonu dab daan Mbaye dina yombam déet nañ leen xool ñoom ñaar ñu ngi noonu ba tey dab daan Mbaye ndaysaan ñu ngi noonu jàpp na ci ngemb li dab daan Mbaye Tine Brésil nuyu naa ko sama xarit ba séeri faati kenn du moom dab daan Mbaye Tine jàppante nañ dara ñoom ñaar ku ci nekk mu ngi jàpp ca geñoog moroomam di déglu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 dab daan daan na ko dab daan la ma waxoon dab daan la ma waxoon def na ko ndaysaan dab daan daan na dab daan daan na Mbaye